ma dem fa seete ko. laaj nag nañ daa jàngale sëñ bi noonu noonu bon nag sëñ bi mag la lool lool waaye nag xel mi demut mu demee leeral bu fukki nit ak ñaar lañ moom ci la bokkoon ñun sëñ Masamba daa àndeeg waxtu yi ñu jaay jóge ay quatre heures du matin ñëw ci kër bi nee bu ñu yegsee ñoom ñëpp ñun suñ bu tuddoon leen mbubbi sedd sax ndax bu dee jamonoy sedd. bu yoo xam ne mbubbi sedd na bu ñu agsee ci kanam suñ masamba day sukk toog di dégloo suñ masamba yi ne seen wet waaye nee na bu ñu déggee bunt yi yëngu wala sikki xeeñ leen rek wala ñuy dégg dënnub sëñ bi di riir di tere alxuraan suñ masamba danaan dafa dafa rawal leen boroom a ngi ñëw baat boobu rek lay lay wax defarawaat leen borom a ngi ñëw ñoom ñoom ñu gën a defaraat toogaay bu dee ci njël gi bu ne ko ci bunt bi patafoor bi ngay gis mu yor ko ci loxo bi day ne bu àggee suuf ba bi asalaamaaleykum bisimilah inna allaha maana bu ne inna maana ñu jël ahmad mu ne waskurullaha fi ayyaamin ma'duudaat ñu daal jël xasida yi wajjahtu kulliya zaa qurbin minallaahi xillan wa hibban wa saasuqin ilallaahi allahu akbar ma kunta awaluhu ولست أعطى ولا أرجو سوى البغي فكري وصبري ورلواني وما مديتي بالقلب والجسم والأقلام لله كل له جل في سر وفي حلم ولا سأفعل خيرا في الله رباني نبيهم وأب أشكره ما دمت حيا بحول الحمد لله